dafa toll ci wax yi ñu sib mu ne wakkarifoo sib nañu basmalatan wax bismillahi rahmaani rahim taxawidan ak wax ahuzu billahi fil fardi julli farata bu dee yoonu maali daal moom sib nañ boole julli julli farata nga wax bismillahi rahmaani rahim moo xam ca fatiha wala sib nañu tam nga wax ahuzu billahi min ashaytaani rajim wala nga naa xasbunallahu wa ni'mal wakil yooyu yëpp ñoom sib ko bu dee naafila dañuy wax ne dagan na ci bu néewul sax sopp nañu ko bu dee taalibe bi sëñ Tuubaa moom dafa bëgg mu të mu dafa bëgg taalibe bi tënku ci loolu waa Maali wax ci seeni téere te bañ a déglu jeneen wax wax sujooda ak sujoot fi saw bi ci malaan ba tey nee maanaam di julli di sujjóot ci kaw sa mbalaan wala ci sa lafu kaala dana ko wax léegi sax wala lafu mbubb loolu bu fekkee ne tàngaay bërëb bi waralu ko ba sedd ba danga ko def rek ngir xal xëy na ngir bañ a taq suuf ba yooyu daañu ko sib moo tax mu ne kasaaniki nii kawru ximaamatin lem-lemu kaala wa bax du kummihi ak leen lafu mbubbam maanaam daal bu sañoon boo dee sëgg di sujjóot sëg jë day jonjoog suuf muy jëmmi suuf ci ngay sujjóot bëgg nañ sax boo delloo boo delloo sab sajaada mbaa loo jullee ni ki ab der te ci bitti fa nga xam ne fa nga dëpp sab jë say loxo di fa tegu tolloot sab jë yow bëgg loola nga bàyyi ko muy suuf nga bañ a sujjóot ci malaan bañ a sujjóot ci tappi ba dara su fekkee tàngaay waa ko waral wala sedd ba ëpp nag waaw suba waa kon dee su ko sipp waxam lu sey in ak yenu dara mooy def dara rek fii ci la fa buggum aw fii fan ci wala ci gémmiñam maanaam di julli def ci sa lafu mbubb ni ki poos wala nga fas lafu mbubb bi loo xam ne mën naa am sa xel di ko xalaat boo dee julli ba tey loolu sib nañ ko di julli ba tey seex ci sa gémmiñ loo xam ne téewu laa mën a tudd yi sib nañ ko te it nekkul loolu mel nag lekk nekk bu doon tàngal wala yooyu mu ne soppi ko lekk waaye boo doon julli seex lu mel ni aw xeer mbaam dërëm te yàqalu la wax baat yi dañ koy sib rek yem ci xëya atum ak jàng alquran la def sujjóot yi fa sujjóot ba war rukkoo yi ak rukkoo ba nee jamono yi ngay sujjóot ak jamono ngay rukkoo sib ni nga di fa jàng alquran bu dee sujjóot mën ngaa boole sàbbaal ak ñaan bu dee rukkoo moom sàbbaal kese lay am ndax dañu sib ku fa ñaan tafakkurul xal bi ak xalaatu xol ba bi ma ci loo xam ne naafaa daq naafaa dàqonte naag ragal yàlla ba tey sib nañu ngay julli sam xel di nekk ci lu bokkut ak julli gi ak sa borom bi nga taxaw ci kanamam maanaam daal di xalaat ci mbiri àdduna loolu sib nañ ko ne borom xalaat ci mbiri alaxira moom doo su ko sib teewul nag xalaat yi lu mu bari bari waaye xam nga li ngay julli rek ne julli gi yàqu na soo demee dem na ba nga xam ne xamatoo ci dara dara dara dara xalaat yi bari nag su boobaa moom day war nga dagg ko te tàmbaliwaat ko waxabasan ak fo maanaam bokk na ci yi sib ci julli muy julli di fo fo gi nag mën muy foxe jaaro bu mu takk ci ab baaraamam wala muy foxe ab sikkimam wala leneen lu muy foxe rek loolu sib nañ ko wal iltifaatu ak gestu di julli di gestu moo xam ci ndeyjoor moo xam ci càmmoñ loolu sib nañ ko wa duha ak ñaan asna qiraatin ci biir jàng fatiha mbaa sarwa mu ne ba ngay jàng Fatiha maa ba ngay jàng saaro ba yooyu yëpp nañ ku fa ñaan kasaani ki ni in rakk xandeem rukkoo na ba tey jamono yoo rukkoo dama bëgg rek nga sàbbaal yam ci te bañ caa boole ñaan yàlla may ma nangam déedéet loolu boo sujjóot moom mën nga ko waaye boo rukkoo moom da ngay sàbbaal kese yam ci tashbikul asaabihi ak ràbbale baaraam ya aw farqaatul asaabihi wala foq baaraam ya di julli di ràbbale say baaraam wala ngay foq say baaraam ba tey loolu dañ koo sipp taxasuran akuk jatu jatu mooy teg sa loxo ci su sàlluwet ca ba nga taxawee nga jël sa loxo teg ko ci sàlluwet loolu la ñu wax ni jëfi yahood yi la moo tax sib nañu ngay julli di ko def taaxum ne bu xëy nin ak gëmmal bët taabi na nga toppaat nee na ba tey di julli di gëmm say bët te bañ law la fat wala bañ a xool lu araam waralu ko nga jékki-jékki gëmm rek loolu sib nañ ko ndax dañu bañ mu feeñal ragal yàlla gu nekkul ci moom faslu li ab dog la wa xam salawaat ci juróomi julli fardu xëy ni faratay jëmm lañu nee na julli mu julli suba ak tisbaar ak takkusaan ak timis ak gee nee yooyu moom julli farata yoo xam ne jëmm ju bu la waree kenn mën na koo defaale bu ñëpp defoon ba des yow du tax sa jaan wàcc wax yee moom julli nag kifaayatun kifaaye la maanaam fardu kifaaye la li moytin ñeen ab néew doona may nit lu fen nee na jullee ab néew nag moom fardu kifaaya la mooy bu ko ñenn defee rek ñi ci des seen jaan wàcc na bu ko ñëpp bokkee seetaan kenn bañ koy def nag su boobaa ñëpp bokk am bakkaar ci jullit ñi foroobuxaa ay farataam moom jullee néew nag ak takbiru moo di kàbbar arbaxan yenti yoon duxaa akuk ñaan woon ñu yëtul ak yéene salaamu sirrin salmalub yàllu tabixa topp na dina jullee néew am na yenti farata ba ci njëkk mooy yéene yéen a jullee néew ba wala néew bi dina moo limu ak allahu akbar yi ngay wax yéenti yoon koy wàññi muy jenn farata ak ñaan nga ngay ñaan ci diggante kabar bu ne moroom ma ak asalaamaaleykum ji ngay wax te di ko wax ndànk bu dee ilimaan na koy wax rek bu yem ba maaw mu dégg ko su ko defee ilimaan maaw yi kenn ku nekk waxal boppam rek ndànk ci suuf asalaamaaleykum kon yent yooyu mooy yenti farata yi julleeg néew wal xoslu cangaay la ka salaati bi ngi mel ne ki jullee ga dafa nun akuk sóol wakka fa nun akuk sàng nee na jëmmi nee ba itam ak sàng ko ak soo ko moom jullee gi yooyu lu ci nekk fardu kifaaya la bu tax taxawee ci def ko rek dal nay baax ñi ci des seen jaan waaye bu ko ñett bokk yi seetaan nag kenn deful ko julli ba te war ko ko defal su boobaa ñett bokk am bakkaar wetru meetar ku sooful ak jullit muur ayidun ak jullit xiit istisqa ak jullit mbaaw yooyu sunanun ay sunna lañu witr it tolloo firi benn rakk boobu nga xam ne dañ koy julli ci gannaaw boo jiitalee ñaar ñaaree moo tudd ashafu ashafu mooy tollun tolluntiku mooy ñaar benn rakk ba nga cay teg te ñu sopp nga jàng ca faatiha ak lixlaas ak falax naasi rakk boobu wet moo tudd wetar te mboolem julli sunna yi moo ci gën a dëgër ba tey julli muuru jant ci ne moom it julli sunna la julli ñaari weer nag moom daa ñu wax ne lañu sopp lu agoo ci sunna julli xiit mooy julli korite tabaski moom itam ku ci nekk sunna nga julli mbaaw mooy julli gi ñuy julli ngir sàkku ndox ci suñu borom loolu ba tey julli julli googu ba tey julli sunna la moo tax mu ne yooyu ay julli sunna la ñu maanaam bu farata yi jàllee julli sunna yooyu ñooy gën a màgg naafila kese fajuroon ñaar rakkay fajar rax yi bat lu ñu xemmem la nee na ñaar rakk yi ngay julli bu fajar jotee bala ngaa julli suba raxidatu lañ koy tudd ci yoonu Maalik raxidatu nag mooy loo bu jullit sunna jàllee mooy loo xam ne ki doon teel yoon wi da ko da caa wax lu lu tax xeet yi war koo xemmeem xam nga bam ne rek xataalu fajri xayrun mina dunya wa ma fiha xanaa bam ne ñaari rakkay fajar moo gën àdduna ak li ci biiram bu fekkee ni àdduna ak li ci biiram amee na noonu amee na noonu njëriñ itam ñaari rakkay fajar koy gën loolu kon wax ji xemmeem loo xeet wi la wa tuqudaa def na ko fay nag li sawaali ba tisbaar maanaam moom dong ci mboolem julli xam ne bu ñu farata ñaar rakkee fajar moom bu fekkee raw na la mën nga koo fay li tàmbalee fi naafila dagane ba keroog tisbaar di jot bu jant bi yëkkati góoro gannaaw bu fekkee lu toll ñetti meetar foofu la naafila dagane dafa dale nag léegi ba tisbaar mën nga faa fay ñaar rakkee fajar bu fekkee julliwoo ko woon waaye nag bu tisbaar xasee jot jeex na kenn du ko fayati wal fardu farata ja yuqdaa def na ko fay abadan faw wa bit mu ànd ak toftaloo nee na farata nag moom saa yoo bàyyee faw nga war koo fay te it des ko war a sësale de sësale gi maanaam ba jiitu jiitu ko ca topp topp moom farata moom saa yoo ko fay bu la wàcc waxtu woo ko fay rek moom baax waxtu woo ko fay baax amul woon ku ci fay bor naafila kay moo waxtu koy sibe waaye fay bor moom mënees na ko ci waxtu yépp nu di ko soppeef na naflan naafila mutlaqan ci yépp waxtu wañ ko aayawut sibuñu ko maanaam yépp waxtu woo xam ne araamaluñ ci la sibuñu ko ca sopp nañ boo ca mënee julli ñaari rakk mbaalu ko wëpp nga def ko mbaalu ko ku tuyaaba xam loolu moom day yaatu yépp waxtu rek mu ràññal ci yenn yoo xam ne mun ñoo gën a ko mu wa ukkilat feddaleef na taxiyatu nuyoob jàkka duxan ak julli weer weer tarawixun ak naafile ramadaan talat yooyu topp nañu waaw nee na naafile yëpp lañ sopp waaye nuyoob jàkka dañ ko caa feddali sopp ko maanaam boo duggee ci jàkka te nar a toog boo dee romb rek jàll moom jëre ko waaye boo nar a te fekkoo ñu taxawal farata te waxtu yooyu sibuñu ca naafila araamaluñ ca naafila kon sopp nañ nga julli ñaari ràkk nuyoo ko jàkka ji bala ngaa toog boo xasee toog itam du tee ñu bëgg nga def ko toogaay bi du ko tax a raw waaye bala ngaa toog nag a taamu yoor yoor gën ngaa ñëw ñaari ràkk mbaa ñeent mbaa juróom benn mbaa juróom ñett julli yoor yoor ko lool ana naafila bu ñu la waxtoo mi ngi tàmbalee fi naafila dagane ba tisbaar jot diggante boobu fi lañu julli yoor yoor boo mënee bàyyi nag ba yoor yoor bu dëgër nag ba naaj bi tàng nag foofu lañ a soppee ak naafile yi ñu def ci weeru koor moom it naafile yi ñu sopp la ak buñ ci sunna dañ koo sopp bu baax baax rek sopp gu fàttali ko wa qabla witrin ak ci njëkk wetar maanaam bala ngaa julli wetar bi ñu la waxoon ni benn la lu néew néew nga julli ñaari ràkk mu jiite ko loolu sopp nañ ko ndax boo taayee lee jékki-jékki julli benn ràkk kese mu wetar da nga def lu ñu sib ndax dañoo sopp faaw rek lu néew néew ñaari jiitu ko mis la jëfriñ kem tisbaar xasrin ak njëkk takkusaan wa baxda maxribin ak gannaaw timis wa baxda zuhrin ak gannaaw tisbaar nee na tisbaar moom sopp na bala nga koo julli nga naafila boo ko jullee ba noppi itam nga naafila mooy lam daane looyo wa baxda zuhrin li njëkk wax bis la zuhrin dafa jublu kenn njëkk tisbaar loolu jubla wax tisbaar bala nga koo julli ak gannaaw boo ko jullee lu ci nekk sopp na lu néew néew ñaari rakka boo ko defee ñeent nag moo gën ñaar bala ngaa julli ci ak ñeent bala ngaa julli tisbaar ak ñeent boo ko jullee ba noppi ñaar sëlmal ñaar sëlmal lay doon kenn du boole yent yëpp su sële takkusaan nag bala nga koo julli rek lay am naafila waaye maanaam bala nga koo julli waaye gannaaw boo ko jullee moom dañuy sib ku naafila ci yooyu jamono gannaaw timis tam sopp nañ ca naafila lool ñu Sëñ Tuubaa daal ci digle gannaaw timis ñaari rakka rakk bu jëkk bi faatiha ak qul yaa ayyuhal kaafiruun rakk boo ko defee ñeent mu gën a baax boo ko defee juróom benn moom lay gën a baaxati fas lun lii beneen dog la yu sàmm def na sunaal sajadataani ñaari sujjoot xamal salaam ci njëkk salmal lu naq ci sunnati ngir wàññi benn sunna sixwan ci njuumte aw sunna nin wala ay sunna nee bu fekkee bi ngay julli da ngaa ba bàyyi ci julli gi benn benn sunna bu ñu feddali wala lu mat ñaari sunn mbaa mu ëpp ko yi ñu feddali waaw su boobaa dañu sunnaal bala ngaa sëlmal mooy boo taayee ba wax asalaamaaleykum rek des ci nga sujjóot ñaari sujjóot dellu baal mu waat taaye ja door a sëlmal loolu mooy xablu salaam bu ñu nee xablu salaam mooy da ngay xam ne sëlmal dong moo des nga sujjóot ñaari sujjóot ñi dellu baal a sëlmal nag loolu matul xablu salaam bu wàññee benn sunna wala lu mat ñaar mbaa la ko ëpp nag tamit ci sunna ñu feddali kon sunu la nga def ñaari sujjóot ñoom rek muy xabal salaam bu ko defee sunna yi fet li am nañu ko wàññi ne juróom-ñett la te mooy gannaaw boo jàngee faatiha ci rakk bu jëkk ak bu ñaareel la nga cay teg muy aw saar mbaa mu ci aw saar ak bëri mu yett yi ngay wax yépp ci julli ba mu des kàbbaru armal muy ñeent ak samihallahu liman hamidah muy juróom taaye bu njëkk bi mu juróom benn ak jotaayub taaye bu njëkk bi mu juróom ñaar ak taaye ju mujj nag bu ko defee mu juróom ñett am na ko doon jéem tënk ci siinaani siinaani kada jiimaani raani haddu sunani tamaani siinaani jëm di wax yaay siin yow la jublu muy assirru wa suuratu siinaani bi ci topp sin bu la muy attachahudu al awal wa thani man naa kasaa jiimaani dafa jublu ci jiimaani ji al jahreel juloosu li tashahudil awal maanaam biral ak jotaayu taay bu njëkk bi man naa taaani daa bëgg wax at tahmidu wa takbiru maanaam samiha allahu liman hamida ak allahu akbar ju bokkut ak armal bi waaye xam nga ne kii taalif moom dolli woon na ca taxawaayu saar wa ci ràkk bu njëkk ak ràkk ñaareel boole woon na ci itam jotaayu taay ju mujj ji lu may diir ba ngay waxe asalaamaaleykum lii boobu moom farata la waaye jot tool ba ngay tool bi taaya ak ba ngay julli ci yonent bi yépp ba tey boole nañ ko ci sunna mu fedduli ci li nga xam ne moom la taalifkat bi moom waxee waman yesit ku dolli saxewoon ngir juum sajara mu sujjóot bax du ci gannaaw salmal kaganiki nii ñene bu fekkee da ngaa juum ba yokk ci julli ga lu ci bokkut kon da ngay def bax de salaam bax de salaam mooy da julli ba wax asalaamaaleykum ba noppi daal di sujjóot ñaari sujjóot ñaar su jëm ñi ak yéen nga dellu baamuwaat taaya ja baamuwaat sëlmal ba loolu moo tudd wax de salaam moom boo yokkee kese loolu ngay def ba nga wàññee kese nag moom defoon xablu salaam waxal lit na sa wàññi nga iñ war a dan dem rot na nee bu fekkee dangaa boole dolli ci wet ak wàññi ci wet te loolu mën naa nekk waaw su boobaa kon nee na dangay ëppal doole wàññi gi mooy dangay sujjoot xablu salaam rek te bañ a sujjoot bax de salaam wastadrib na nga dabaatal alxabli yi sujjóotub xabla wa maxqur bi salaami maxqur bi salaami ànd ak jegee sëlmal ga ànd ak jegeeg ba maanaam daa wax ne bu fekkee dañ laa digaloon xablu salaam ndaxug wàññi nga fàtte ko nag bu xas sëlmal te njëkk sëlmal lañu waxoon waaye fàtte nga ko bu xas sëlmal kon soppi ku ne baax na salaam waaye danga koy def rek soppi bu gën soppi ku gannaaw sëlmal du ko yàq ndegam yàggul rek du ko yàq wastadrik na nga dabaatal al baxdiya sujootu baxdi salaam walaw min baxdi xaamin ak doon ci gannaaw am at la nee na fu ñu la diggalee sujoot baxdi salaam nga xam ndolleen moo koy waral nag moom lu mu yàgg-yàgg saa yoo ko fàttalikoo rek te amam njàpp dal di koy def lim ne doon te at la man nga ne sa diirub rek la saa ko fàttalikoo rek baxdi salaam moom boo amee njàpp daal koy mën a def xam xabla salaam nee nag moom boo ko fàttee tam xasi yàgg daañu daañu daañu ci daañu ci dellu siwaat amuñu ci wax tuuti yi nga xam ne dina yenu al ilimaan bi xaajeen yi la yaar xan muqtadin walis aji roy maanaam nee na sujjootu xablu salaam ak sujjootu baxda salaam soo xasee ànd kenn mu lay jiite moomee lay jiite gàddul na la ko maanaam boo defee loo xam ne bu doon yow dong ci sa jullit bopp yow dong daawuñ ci digal xabla mbaa baxda léegi boo àndi ku lay jiite kon du aajoo ngay def sujjoot sujjoot yooyee day mel ne ilimaan gàddu na ko war a dong daal ñu digal la nga def ko waaye ndegam am na ku la jiite mm-hmm. su boobaa du aajowoo nga koy def nit ki boo àndoon ak kenn mu lay jiite nga fàtte wax allah akbar ñaari yoon ba ñett ak tax nga sujjóot xabla salaam ba dara ngay rek ci kàddu na ko mu ñëw nag ci nga xam ne muy yàq julli wa batalat julli yàqu na bi xam di nafxin ci tay wal maanaam boo dee julli tay ko ba noppi ëf ak sa gémmiñ julli nga yàqu aw kalaamin wala tey wax li xëyri islaahin ñeel ju defar julli ga maanaam soo dee julli wax wax ju bokkul ci julli ga te defar julli ga waralu ko te yaa ko tey boole ci su boobaa tey julli gi day yàqu mu wal gi nag mu wax gi soo ko waxee te njuumte rek ko waral da nga sujjóot rek bax de salaam wabil mushkili ak ci lépp luy aji gàllankoore xan fardin walis farata ne la boo dee julli la gàllankoor ba nga bàyyi farata ni ki mu yàkkamtee dem ca wana wa ba tax mu bàyyi benn farata ci julli gi su boobaa julli gi day yàqu wa na nga baamu nag fil waxtu ci waxtu wa isa yu sonn dem def koo sunnaal maanaam bu fekkee ci misaal yàkkamti gaa dem ci wana wa yàq téew laa def farata yi ba mat waaye nag am na sunna mbaa ay sunna yoo xam ne defoo ko ci julli gi ngir yàkkamtee dem ci wana wa su boobaa julli ga baax na waaye sopp nga baamu ko ci waxtu mooy li fi waxtu jeexul nga baamu ko bu waxtu jeexee du aajo ba baamooti waxadasin akum toj bokk na ci liy yàq julli mu julli ba yàgg fàttali ko am toj wala muy wala boog mu julli ba yàgg am toj génn ci moom niki doonte demoon na bay taaye ba mu des asalaamaaleykum sax am toj génn am jàppam toj julli googu yàqu na faaw bu amaateem jàpp da koy tàmbaliwaat rek wa sëx wi say dil misli ak juum ba dolli am kem maanaam boo juumee ba yokk ci julli ga rakka yu toll ne moom su boobaa julli ga day yàqu léegi nga juum ba tisbaar nga julli ko juróom-ñett te fekk ñeent la woon mbaa suba nga ba julli ko ñeent te fekk ñaar la woon lu mel noonu julli ga day yàqu bu fekkee dolli woon nga ci ràkk waaye taxul nag mu mat lu toll ne moom nag su boobaa da ngay sujjóot rek bax de salaam muy ndolleen xëy xëxatin ak xàqtaay boo julli reeree gu am kàddu ba tey loolu julli waxam di surbin ak tey naan ak lin ak tey lekk wa sajdatin ak tey ab sujjóot hmm. nee boo dee julli tey ko lekk mbaa nga naan te fekk ne julli gi day yàqu bu fekkee teyoo ko am na ne julli gi du yàqu moom boo ko teyee bàyyi ab sujjóot mbaa nga tey ko yokk ca ab sujjóot ndax ndax sujjóot boo ko yokkee noonu boo fekkee yaa ko tey ba tey day yàqu waaw ah, kon saa ku teye ba noppi yokk ci julli ga ak ponk boo xam ne ponk bu ñuy jëf la du ponk bu wax ni ki rekkoo mbaa sujjóot waaye su boobaa julli ga day yàqu xëy in ak tey wàccu ko ba noppi looju génn wàccu faayu faayu julli gi yàqu wa zikri fardin ak fàttaliku farata aqal la ji yées min sitti ci juróom benni farata dina boo dee julli ab julli ba ci biir nga fàttaliku ne am na julli yooyu weesu yoo xam ne juróom la juróom la mbaa ñeent mbaa ñett mbaa ñaar mbaa genn waaw su boobaa xam nga yooyu dañoo war a tegaloo gii ngay julli su boobaa gii ngay julli yàqu na da ko war a dagg dellu ci yooyee ba agsiwaat ci moom ñu door koo julli waaye nag ñeent moom ñëpp maase na ci ne néew na juróom benn ñëpp maase na ci ne bari na juróom na ci lañu wutee ndax dafa néew am dafa bari waaye yow nga koo boole ci bari gi rek moom nag moom moom mu taalif moom da koo boole ci néew te zikril baax di ni ki fàttaliku lenn julli maanaam boo dee julli ak julli fàttaliku ni nga ko jiitu woon kat doon nga ko julli waaye bàyyi woon nga ca farata mbaam ràkk su boobaa jiitam yàqu na ndax moo ko fàttaliku julli ñoom ñooye moo maanaam tey boo doon julli tisbaar fàttaliku ni ba nga julli suba bàyyi woon nga ci ab rëkkoo ba ak sujjóot su boobaa xam nga day mel ne kon léegi suba julliwoo ko woon moom la julliwootu moom la julliwootoon yam te aajowoo tisbaar bi nga taxawal boo ci amee benn rakk nga gaaw dolli ci benn muy ñaar nga def comme naafila daal dellu ci suba julliwaat ko door ñëwaat ci moom tisbaar mi wa fawti xabli yi salaasi sunnanin ak faatum xablak ñetti sunna loolu laa doon wax naa daañu ci dellusiwaat maanaam bu fekkee ne dangaa bàyyi woon julli ko lu ñetti sunna ñu waxal leen ne la sujjootal ko xabla salaam kooko bu fekkee yéex nga koo fàttaliku ba jóg fa nga doon jullee mbaa jógoo fi waaye léegi yàgg na su boobaa julli nga yàqu na moo tax xam ne bi fas li masjidin ci teqalikoog jàkk jàkka mbaa fa nga doon jullee rek kattool yi zamani ni ki yàggu jamono ja saa yoo xam ne daal fàtte woon nga ci julli gi lu mat sunna muy digal la xabla salaam nga fàtte ko nag bu sëlmal te mu yàgg boole ci mbaa jóg nga fa waroon jullee su boobaa julli googu yàqu na faaw da nga ko julliwaat bu xësee yàgg nag mbaa nga fa waroon jullee la nga fàtte woon mbaa yéene maa dërëm dong la xam benn suma la su boobaa baax na wastadrik na nga dabaatal ak rukk na ponk ba fa in xaala ne ndiggale na rukkoo xun rukkoo fa alxiyatal daati sëxwi ràkk bay boroom juum ga wal binaatu jokk ga yàqoo gën a topp daa wax ne bu fekkee dangaa bàyyi farata ca ràkk ba dabaatal nga lay tax mu wees mooy nga dem ba rakk bi ci sës rukkoo na ci ba siggi saa yoo xam ne ab rakk fàtte nga ci farata ba jàll ci rakk bi sës ci moom ba rukkoo ci ba siggi xamal ne kon rakk ba nga bàyyi woon farata ja dabaatal nga wees na su boobaa kon rakk boobu da nga ko wecc mooy ba amee njuumte ga su ko defee nag rakk bi sës ci moom daal di koy wecci nga xam ne loola bu fekkee bu jëkk la woon bu ñaareel mooy sopp bu fekkee bu ñaareel la woon bu sopp ku ñaareel bu fekkee bu ñetteel ca nga bàyyee farata ji ba rakkoo ca boobu ñeenteel ba siggi kon ba tey noonu rek nga koy defee kon boobu ñeenteel boobee mooy sopp ku ñetteel ba mu des nag rakk bi ci mujj rakk bi ci mujj moom daañu wax léegi lay tee nga mën a dawaatal ponk ba nga ca fàtte waaye kon daal na nga takk ne moom rakk yi julli yi bu ca du rakk yi nekk ci julli gi bu ca du ba ca mujj nga mën koo dabaatal mooy nga dem ba ci rakk ba ci sus ba rukkoo ca ba siggi loolu moom bu fekkee xas nga dem ba rakk ba sus ci moom ba rukkoo ca ba siggi rek jeex na rakk ba nga fàtte woon farata boo ko ci sa julli ba sus ci moom rek na ko wecci na ko wecci taxaw taxawaayam a jublu ci wel bi naa jokk ga yarta waxu dana topp jokku jokku googu lañ ci jublu mooy ràkk ba yàqu bu sës ci moom na ko wecci taxaw taxawaayam mu des nag ràkk bi nga xam ne moo ci mujj bi ci mujj moom lay tee nga mën a dabaatal farata ja nga ci bàyyi moom la ñu bëgg a wax mooy ko fi ali man ni ki jëfi koo xam ne sallama selmal na maanaam bu fekkee ne ràkk bi ci mujj xas na ci selmal bàyyi nga ci farata waaye xas nga sëlmal te sëlmal ga da ngaa jàppoon ne julli gi mat na te rekk njuum te da ngaa jàppoon ne julli gi daa mat waaw su boobaa sëlmal boobu day tax doo mën a defati ponk ba nga fàtte ci moom rakk boobu mujj ci julli ga léegi ponk waaye bu fekkoon rakk bu mujj bi sëlmaloo ci mbaa sëlmal nga ci waaye njuumte rek la ba tey kon dabaatal ponk ba nga ca fàtte wéreegut laakin waaye nag yuxrimu dana armal maanaam dina yéene ànd ak des ja nee na saa yoo fàttalikoo ci julli gi loo ci defutoon ba xës sëlmal mbaa rakk bi nga xam ne moom ci julli gi bàyyi nga ca ponk ba xës sëlmal sëlmal boo jàppoon ne julli ga mat na dañ wax ne kon léegi rakk rakk bi lëm ngay indi waaye nee na rakk boobu soo ko dee indi ngay wax allahu akbar ànd yéenee mottali julli gi armal gi wax mooy nga yéenee mottali ko defee bu dee loo fàtte woon ci julli ga gannaaw ba nga fàttaliku gannaaw ba nga sëlmalee noonu lay doon bu dee rakk bi ñu wax ne itam moom nga war a rakk bu mujj bi nga fàttee farata te wax koo fàttaliku boo wax asalaamaaleykum ñooy moo ci loolu yow allahu akbar ci bay indi loola am na yéene boole ci mu teg ci nag ne wettoolu yàgg ga mulsimun aj waral la alfasaada yàq ga maanaam nag bu fekkee ne da nga waree indi ab rakk ngir defare ko rakk bu mujj ba yéex nga koo def yéex ko fàttaliku ba nga ko si yéex nga imaam daal yéex nga ko fàttaliku ba def ko su boobaa julli gën a yàqu nga julliwaat ko ba bu fekkee da nga caa fàtte ak ponk baab rakk te yéex koo fàttaliku ba sëlmal ba mu yàgg su boobaa itam julli goo gën a yàqu faaw nga julliwaat ko kon bañ ngaa yàgg ak sart la ci moo tax mu ne toolu mulzimun al man chàkk ku sikki sàkk fii rukunin ci ponk banaa kon mu jokk alal yaqini ci wóolu ga wala yës cub dana sujjóot al bax di sujjóotu bax de salaam nee na bu fekkee da sikki sàkk ak ponk sàngam def nga ko wala defoo ko wala ngay sikki sàkk ba xam rakk sàngam nga toll maanaam ngay sikki sàkk ba xam da julli ñaar wala ñett wala da julli benn wala ñaar wala da julli ñett wala ñeent bu dee ponk bee ñuy sikki sàkk waxam rukkoo nga wala rukkoo woo wala sujjóotu wala sujjóotu sujjóot nga wala sujjóotoo da ngay ko daal di koy def muy rukkoo ba muy sujjóot ba bu dee ràkk yi itam noonu la da jàpp lu gën a néew ndax moo la wóor te boo doon sikki sàkk ñaari ràkk nga julli wala benn bi moom wóor na la kon da jàpp benn bi daal jàll teg ci ñaar daal di wéy boo doon sikki sàkk ñaar wala ñett kon ñaar yi moom wóor na la ngay ngay ñaar yi la wóor jàll ca ñetteel doonu sikki sàkk ñett wala ñeent ba tey noonu rek da jàpp ñett tegaat ci ñeenteel dañu wax naa ashakku fi nuqsaani ka taxqiqi mooy sikki sàkk ci wàññi nga wàññi woo dañ koy jàpp ni wóoree wóor wàññi nga luñ ci mën doon nag na nga sujjóot bax de salaam li tax ñu wax na nga sujjóot bax de salaam mooy ba nga ne defoo ko ba def ko boo demee fekk na nga def ko waaw te kon loolu ndolleen lay doon moo tax na ko ñu sàkku nga sujjóot bax loolu mu ne nag mu sujjóot wax di salaam ci loolu day def léeg-léeg nag moom yaar day tase dolli ci wet ak wàññi ci wet su boobaa bu yaar yëpp tasee nag te la ko waral mooy li ñuy wax albinaaw jokk albinaaw jokk mooy bañ ne ràkk bee yàqu na bii moo ko wecci waaye bu sës ci moom moo ko wecci loolu boo ko defee ci julli léeg-léeg boo xoolee julli ga day am ndolleen am wàññeen su boobaa na ngay def xablu salaam te bañ a def baxda moo tax mu ne laakin waaye xat ya biiru amaana bu dina bir naqsun ak wàññi bi fay ci sóoratin ci faatug aw saar li an banaw ngir ba ñu jokkee fii fii alihim ci seen jëf wal xawli aw wax ja su boobaa fal xab kon su joot salaam moo ciy war waaw nee na léeg bu fekkee danga nga ne rakk sàngam yàqu na ba sës ci moom moo ko wecci léeg-léeg nga def ko nag boo noppee julli gi mu am wàññeen am ndolleen niki bu fekkee rakk bu njëkk da nga caa fàtte woon ab sujjóot ci misaal mbaab rukkoo te yéex koo fàttaliku ba dem ba ci rakkam ñetteel ba rukkoo ci ba siggi xam nga rakkam ñetteel bi moom fatiha kese nga ci jàngoon ba nga tolloo ci taxawaay ba ndax da ngaa jàppoon ne ñetteel la gannaaw ba nga ci rukkoo ba siggi nag ne bu njëkk yàqu na ndax bàyyi woon nga ca farata te dawaatal nga wees na kon bu njëkk ba bokkutul bu ñaareel bi moo soppiku bu njëkk bu ñetteel bii nga nekk moo soppikum ñaareel xam nga kon doon nam ñaareel te amul aw saar ndax moom fatiha xele kese lañ ko jàngaloon su boobaa nag kon su boobaa nag kon bu sa julli àggee ba nga xool ko day am wàññeen ci wet am dolleen ci wet dollin gi moom mooy rakk ba nga xamee ne da nga ko weccee beneen mooy bu jëkk bi nga xam ne beneen wecc na ko mooy bu ñaareel bi taxaw taxawaayam gi gis nga ko mooy rakk bu bi amut lu saar waaw ndax gis nga ni ñu ko waxee da ngaa yéex a fàttaliku ne ab ñaareel lay doon ndax da koo ko defoon ñetteel bara koo ci ba si ji door a ko ne benn yàqu na benn yàqoo nag nit ki bu jëkk bi misaal kon bu ñaareel bi moo soppiku bu jëkk ñetteel bi moo soppiku ñaareel te amutu saar kon sa bu àggee day am wàññeen am dooleen su boobaa nag moom ngay def xabla salaam bu fekkee nag xool nga xool sa julli gi bi nga noppee ndooleen kese moo ci am su boobaa bax di salaam dong lay doon waaye nag boo xoolee mu am dooleen ci wet am wàññeen ci wet kon da ngay def xabla salaam ndax nee nga woon doole wàññi buñu tasee ci béréb da ngay ëppal doole wàññi ga